Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey vendredi 24 avril 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay yi comme ni ngeen ko amee chaque jour moo ko seq ak Boucar Ndour Kor Mama borom Jilaas borom Mbeelo Ngij borom Fadia Boucar Ndour maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal rawatina mbokk internet Lutte TV yëpp Lamine ñu ngi ko waxee rek tey le vendredi avril 2020 di la baalu àq di baalu Sénégal yëpp àq. tey la 24 avril wala 24 mars Boucar Ndour. 24 tey. waaw. tey la 24 avril. non ñu ngi ci mois de mars weeru jigéen ñi Boucar. yow yow da ngay de yaa ngi ci avril la mi yow nga fay def indépendance ba pare. Ah, kon yaa juum wala maa juum. yow yaa juum kon maa juum noonu la demee ñu ñëw ci yéen kaay andi leen journal sunu làmb ak journal bi nga xamante ne mooy journalu record waaye dañuy laal tamit ci journal sunu làmb démb bi comme démb defuñu ko mu xëyoon fësal Matar Ba ak ki nga xamante ne mooy Alioune Sarr président CNG mel ni ginnaaw ba mu defee vingt six ans ci boppu CNG bi journal bi xëy bind ni Matar Ba lâche Alioune Sarr. mu mel ni loolu la journal sunu làmb xëy fësal démb rek Lamine si xatam bu njëkk ñëpp gisandoo ko Lamine mu mel ni daal dafa Matar ba daal dafa mel ne da doon wutal euh, remplaçant ki nga xamante moo di Alioune Sarr journal bi nag loolu xëy fasal démb am na nag ñu bëri ñu mu am na ñu tamit am na quatre personnes yoo xamante ne nañ leen donte waxuñu seen waaw donte waxuñu seen tur am na daal ñu nga xamante journal bi consulté la leen pour ñu mën a remplacer Alioune noonu la demee ñu ñu xëy journal sunu làmb continuer li nga xamante ne mooy waxtaan boobu noonu wala boog loolu point boobu noonu mu am solo boobu noonu ñëw fësaat fësalaat ki nga xamante ne mooy Tyson fësalaat ki nga xamante ne mooy Alioune Sarr mu mel ne Tyson moom gannaaw nit ñu bëri ñu doon jàpp ne war naa mën a nekk ci boppu CNG bi Tyson moom dafa mel ni dañ ko cee génne ba mu set ci wecc waaw Lamine Tyson exclu loolu la journal bi xëy fësal toog luy toog Lamine de presse bi mujj la bi journaliste yi la li nga xamante ni tey moo di maison de la presse ba rek Alioune Sarr nag wala Tyson si moom la journal maanaam bokkul li ñu naan Tyson Tyson outsider loolu la journal bi xëy xasal. Tyson moom daf mel dàq nañ ko ci ba set ci wecc wecc comme ni ko journal bi fësalee waaye nag leneen loo xamante ni journal bi waxoon na ko démb ñëwaat na ci tey quatre profil yi nga xamante ni ñoom lañ consulter kenn ki fonctionnaire la fële ci INSEP keneen ki benn assureur la keneen ki ancien lutteur la keneen ki ñu ne amateur bu mag a mag la bu am ay diplôme waaw amateur bu mag a mag a mag bu am ay diplôme Lamine ak benn assureur benn ancien mbër benn professionnel bu nekk benn wala benn fonctionnaire bu nekk fële ci INSEP Lamine ñeenti profil yooyu noonu moom la journal bi xëy fasal rek ne xëy na ñoom ñooñu lañ consulter gum Lamine si ki war a wuutu Alioune si njiital CNG la mel. ci njiital CNG bi waaye en tout cas ak lu mën a xew nañ yàgg ba xam fan la wànnante di mujj ak ay góotam waaye dañuy des ci journal sunu làmb bi Keba Kanté moom bëgg nañu boole ko ci ñay remplacer Alioune moo tax mu ni moom pare na pour nekk président CNG bi. je vais être le président du CNG Lamine loolu la Keba Kanté ñu wax Lamine boo ko xoolee nag si journal bi Lamine mu yëkkati ay loxo mel ni koo xamante daal Lamine ma nga cay élection wala ma ngay bàkku daal waaye li leer ba leer moo ko ne Keba Kanté bi doom si Cheikh Kanté moom Lamine nekk amateur bu mag a mag a mag a mag xam leen na bëgg-bëggam ngir jiite CNG bi. nee quatre vingt quatre vingt pour cent ci mbër yi ànd ak moom instant bi pour mu ci waaw waaw moom nag Lamine ku ko xam tamit xam ne maanaam ni ma ko waxee rek yàgg ne mbër bu demee loolu la Keba kante wax waaye nag leneen loo xamante ne wax na ko nee na bis bu ñu ko joxee li nga xamante ne moom mooy CNG bi lamb ji dina changé bu baax a baax a baax ci côté yëpp moom Keba Kanté moom wóolu na boppam ci boppu CNG bi mel ni bu kornoo. waaw lamb ji changé a nekk président parce que moom Keba Kanté daal Lamine xam leen na ne moom buñ ko ko dénkee Lamine dina si andi ay coppite dina si andi ay changement waaw dina si andi. yokkute loolu daal la moom la ñuy seetlu si képp ku nar a jiite CNG na tamit Matar Ba moom matal na comme matal na nag na daal di dem la lay laalaakeem ñu des ci journal sunu lamb ak Yékini ginnaaw bi nga xamante ni toog na ay ati at wala boo toog na ay weer weer gisuñu ko mu def benn sortie ginnaaw sortie bi ñu ko defoon mu def ko ak Père Ngagne Diagne ak Père Malick Thiandoum gis nañ ko mu def beneen sortie ak Père Bécaye ci L'Oeil du Tigre bi moom tamit ñëwaat na bu baax a baax ci ay jaar-jaaram ci wàllu surtout nag ci côté loolu Lamine si jaar daaram si côté mystique si la yëg ni ñëw nag Lamine mu mel ne moom nag maanaam nee na je n'ai jamais avec le mystique moom moom moom si li muy xam le mooy doon bëreel la leer takkaay daawul bëri waaye bu daana bëree lool lool dam na moon demoon na ba àgg sax ni mbër la koy daan du ñëw sat loolu yëpp Lamine maanaam rek ay waxin la woon waaye daal li lay waxee mooy que ne mystique moom Lamine fu ko waaye àpp Lamine weesu na fa am na nag ñu jàpp ne takkaay bu bëri ak butéeli ñi ba ak lañ koy def rek Lamine loolu ak yeneen ak yeneen ñu ko waxee rek loolu yëpp ci mystique la bokk rek mystique moom Lamine dafa bëri te wuute waaye dafa bëri tamit Lamine te wóoroo waaye daal yëkk na daal li muy xam ne si biir journal bi mooy que ne mystique moom Lamine mosu ko caaxaane ñaar ñi la kañ la ñu tàqale ñoom ñaar gannaaw ba ñu war a bëri le 5 avril coronavirus bi ñëw. waaw coronavirus bi ñëw Lamine lëmbe àdduna lëmbe jamono lëmbe Sénégal ba tax combat a fekk tamit amateur yi naan diw moo daan nii la ko daanee wala diw moo yàq ko maam wala yeneen ak yeneen waaye daal gis na ni mu demee coronavirus bi moo yàq lépp à nag surtout Papa xëy na daal nañ yaakaar rek wala nañ defar waaye saison moom Lamine xam naa ne ren moom pour combat bu mag bi dina xaw a jafe xanaa dana xaw a jafe lool xanaa déwén ñi tamit xaw ma kañ la ñuy tàqali ko diggante Garga Mbossé Sa Thiès rëg mu mel ni journal sunu lam moom ñëw na di ñu wax ni ña ngay doon rayante wala boog ña nga doon tëkkuwante ay tëkkuwante yu méttee métti ci Instagram bu Lutte TV ba. ci Instagram bu Lutte TV ba Lamine ni ma ko waxee rek Lutte TV daal Lamine dafa war a ut rek tëgg combat yooyu noonu def ko benn tournoi Lamine bu bu ko tegee Lamine yaakaar naa ne lool lool lool lool gis ngeen ko si temps yi si direct Instagram Lutte TV mbër yaa ngi dugg am na ne ma dugg sax waaye ñun ñi moom la ma jot nañu dugg te jaakaar bi mu ngi mu ngi ngi siy saf sàpp. mu ngi ciy saf sàpp bu Boucar ma dégg sa baat journal bi wan nañu tamit ki nga xamante ne moom mooy Ramdan gannaaw ba mu demee États-Unis mu nekkoon talent boo xamante ne nag làmb amoon nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax waaye nag est-ce que ndemul du dem ba perte li nga xamante ne moom mooy talent Daaw Lamine la perte de loolu la lamb ji xam le maanaam lamb ji naa Lamine perte na talent boo xamante ni Lamine loolu la journal bi ma nga wekkoo kursam Lamine mbëru bi ak Daouda Ngom mu nga noonu a kii maanaam yaakaar bi bi yaakaar bi bi ko lamb yaakaar naa ne Lamine làmb gi sooxe waaye daal li leer ba leer daal mooy que ne journal bi moom dafa jàpp ne maanaam gasi la maanaam xale bu toll moom amoon avenir ci làmb na ko fi ñu dem États-Unis kii tamit avenir u làmb la waaye dafa mënta am combat muy double moteur moo daanta nag la teg bët ama neex waaw ñooñu la teg bët di instant bi waaw ñooñu la teg bët Lamine moom moom moom double moteur rek Lamine moo du ànd ama neex ak ñeneen ak ñeneen ñu bëgg a bëral jamono ji nag Lamine yaakaar naa ne double moteur moom li naan ne euh, double moteur chasse les xëy na nag gars yi ci kaw la ñu taalal ko rek Lamine may ko chance ngir mu a laal ak ñu ñëw ci journal bi nga xamante ni moom mooy journalu record journalu record moom li journal sunu lamb bind dafa mel ni dañoo xaw a ki nga xamante ni mooy di Alioune Sarr président CNG bi mu mel ni dafa mel ni Matar Ba sax wax na ci buy menacé que ni loolu ñuy wax ay rumeur la. waaw Lamine loolu la journal bi xëy fësal rek mu mel ni daal que ne Lamine li nga xamante ni tey moom moom moom la journal sunu lamb fësal diggante démb tey dafa mel ni nag Lamine journal record dafa ñëw tey rek Lamine. maanaam wecc ko ba mu sëkk wecc wecc wecc wecc kon noonu kon loolu noonu ñu wax yëpp Lamine maanaam dara amu si que Matar Ba dafa mel sax koo xamante ne Lamine xëy na dafa bëgg pour poursuivre wala daal mu ngi wax wax jooju. nee na nag li journaliste yi bind lu foo waaye nag dem na ba àgg ci wax ci affaire arbitre yi foo journaliste yi tamit jéem a xam lan mooy texte yi. waaw Lamine loolu yëpp Lamine journal maanaam wax na ko si rek que ne daal boo jéem a xam li nga xamante ne Lamine moom mooy texte yi Matar ba nag Lamine yaakaar naa ne xëy na ni ko yéen ñi waxee rek jamono ji du óoru wax lamb du óoru wax yu demee noonu waaye dafa mel nag démb Lamine wala barki démb moom Matar ba wax na si wala wala wala yaakaar naa ne ki nga xamante moo di mbay sax nekk nekk ki ko représenté woon yaakaar naa ne moom moo joxe wax jooju noonu Lamine xam ne na daal que ne jamono ji loolu noonu ñuy wax yëpp euh, euh, nekkul loo xamante ni Lamine ërëm la ak coronavirus bii te jàpp na ne maanaam Matar bu bëggoon a changé Alioune Sarr ñeneen la siy waxal lu dul nga xamante ni ñoom la ñuy cité temps yëpp ne ñoom lay moo wax loolu moom moo yor kàddu gu ministre bi waaye incha allah ñun danañ topp affaire bi dinañ dem jëli ki nga xamante ne moom mooy Iba Kane moom moo def article bi waaye ma nu mu tuddati Mbaye Sakho ci boppam yor naa numéro moom tamit dinaa ko fexe ko jël moom tamit mu andi ay leeral ñu xel fan la wànnante di mujjee ak ay gëtam. mu ni parcelle mbooloo moom day xëy na journal na seen bilan six victoires quatre défaites soixante pour cent de waaw six victoire quatre défaites Lamine mu nekk lu néew a néew a néew loolu Lamine ci écurie yi parce que écurie yi moom Lamine ni war na fekk écurie yi yëpp Lamine bu nekk ay lu war ay vingt ay six sorties ay gis mu nekk rek loo xamante ni Lamine taux taux bu faible la ci écurie waaye nag boo seetloo seen pourcentage maanaam si wàllu bëre si la ñuy bëreeg ñi am ndam Lamine dem na ba soixante pour cent si victoire ak quatre défaites loolu am na solo bu Kor Ndour fa ñuy jeexalee la ma Papa Ndiaye article série Odysseus di ma envoyé message nii moo tax ñu ngi koy nuyu di nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp foo mën a nekk si àdduna bi di nuyu Toutia Sarr Serigne Ndiour Omzo bu Garga di nuyu tamit Abdou bu xarañ Lo Mame Balla Gaye Italie Mamadou Gueye taalib Serigne Mbaye Sy Abdou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Tigre Noir Xaadim Bamba Caatuli TV ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Serigne Saliou Gueye waaye nag Henri doomu nday soq doomu nday Henri Camara tey la anniversaire am wala ma naan doomu nday Henri Camara sax Henri doomu nday soq doomu nday Ama Baldé tey la anniversaire am ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal mu yàgg ko féete at yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri di tamit ki nga xamante ne moom moo di léegi seen ombee la ngi comme ni nga koy waxee koy nuyu rek kooku sama waale la man di ko nuyu di ko jaar di nuyu Maodo seen sama frère sax maam bi euh, revue de presse bi la 5 borom la Mbour. nit ku borom la 5 su suba la 5. suba la 25 le 25 Ndeye Ndior loo dund doyul. Ndeye Ndior loo dund doyul yàlla nga gën a dund ñu ngi nuyu Mor Jaxate bu baax a baax gars yi suivre yëpp ñu ngi leen di nuyu duñu fàtte tamit suñu xarit laay bu def ñu ngi koy bëgg di nuyu Valdo doom day Zere Diès Serigne Saloum Mbaye borom jëne ñu ngi koy bu baax a baax.